lépp luy gàkk-gàkk ay nax nax du tàbbi sama biir yoon bi kon nag lépp lu ñoom ci gis mu jaaxal leen rek may leen ko diir na ko Cheikh Abdou Lahad Mbacké waxoon jaan ji moom du fi jug waaye saa su agsee rek yat waa ngi taxaw di ko xaar ngir rey ko kon dafa waxoon sëñ Massamba ne ko Massamba mu ne ko Mbacké mu ne ko seetaan di ñëw na ci man de ma fu ne na ngeen xam ne sëriñ bi ci diine rek lan woo te bëgg ñu jariñu rekk tax mu kon looli yi kuy wusi woote koo fàtte loola taxoon Cheikh Mahmoudou Fall Cheikh Mahmoudou Fall daa wax ne ci bis bi ne màggal leen jaamu yàlla ak moytu safaan jaamu gi nag mooy berne jàngi alxuraan tudd yàlla salaatu ala nabi jàngi xasidaam yi bal azimuhu bi tilaawati alquran wa zikrillahi tabaraka wa taala bi anwaahi wa qiraati alqasaid wa it'aami taami lil yataama wal masakin wa silati rahim wa ziyarati wa ma jara majraha mi ngi fàttali mboolem ñu bokkal diine ji waxe rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci képp ku jiite mbooloo ñu def la ngay seen kilifa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi te loolu moo di kenn ku nekk bàyyi xel ne yàlla def ko sàmmloo mbooloo moomu jiite ci mu war taxaw temm di yittewoo ak a toppatoo lépp lu aju ci seen di seen mbir diine ak seen wàllu adduna te bu ëllëgee bu ñu dajee moom dana laaj kenn ku nekk la doon sab taxawaay ca mbooloo ma ngi jiitewoo sëriñ bi naan sëriñ bi naan lii nag tax na ba mi ngi sàkku ci kilifa yëpp ñu gën a laxasaayuwaat yokk seen yitte ak seenu taxawaay ci jaarale njaboot gi ci yoon wa kilifa yi jaaroon ba am cër ak wàccuwaay bi ñu am ci yàlla amoon ko ci bindeef yi liggéeyal lislaam ak seenum réew liggéey bu ñëpp naw bokk na ci la jiitu ci seen taxawaay yi nag ndaw ñi toll ci jàng ñu jàngale na ba ñu xam seen diine ak la ci aju lépp boole ci yar leen ci jaamu yàlla ak jikko ak melo yu baax yi ab julli war ak def ci ñoom jom ak tàggat leen ci ñeme coono ak nangoo liggéey ngir mën a sukkandiku ci seen bopp ngir def seen warteef mu di loo xam ne ci yonente bi sallallahu alayhi wa la jóge moo tax suñu borom wax laqad manna allahu ala almuminina is baasa fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikmata wa in kaanu min qablu la fi dalalin mubin sëriñ bi wax ne nag li jug ngir gàllankoor lool ak dox diggante njaboot gi ak nu mag ña bari na lool te sëriñ Tuubaa teeloon naa aartu ndaw ñi bàyyi loo leen xel bu baax ci xeeti yàqu-yàqu yi am tey ci sunu jamono ji ak ñu bari woon ginnaaw gu gu ñu wan yoon yoon wa yonent bi jaaroon mu jëm ci yàlla mu di sunnaam su sell sax mu fi bàyyi woon te ginnaaw mu saxaaba ya aar ko ak jàmbaar diin yi ñëw seen ginnaaw saxoon ca dundal ko ak yeesal ko ak aar ko ci lépp lu koy tilimal Sëriñ Tuubaa wax ne loolu lépp nag tey su fekkoon ne kër la dañuy wax ne gent na ndax ñu bari ci nit ñi ginnaawal nañ ngir ma yonent bi jaar jaaroon jaar ci ay ñàll yoo xam ne ay caaxaankat ñoo ko fent wëlbatiku couleur kaw ga rafetal ko ba ñu xamul jàpp ne mooy dëgg moo tax Sëriñ Tuubaa wax ne tanabbahu yaa ayyuha shubbaanu qaadakum wa ilal hudal mannaanu fi anna sunnata nabiyina alkarim alayhi afdalu salaati kulla hin kaada tura ka rasmi daarin qad afa fi za zamaani li mu diyil xunafa wa tabiatha siiratu saxaaba zawi lhuda wa thawri wal ijaaba summa talaahuma huda shuyuuxi zawi tuxaa wal ilmi wa rusuuqi ijturika ixtifaaru aathaari salaf li bidaatin qad zuyinat bayna alxalaf sëriñ bi wax ndaw ñi ne leen leen di musal ci mboolem bidaa ak caaxaan yooyu moo di ngeen fexe ba sàkku ji xam-xam te yàlla rek tax ngir ngeen mën a xàmmee lii dëgg ak lii du dëgg mu wax ne balaa kenn dem ak boppam na jiite loolu ko bëgg a dem yóbbaale ñeneen ña la topp ngir yàlla yitam nanga xam lu ba xam bu baax fi nga jëm ak fa leen jëm fasaari'u lil ilmi ajmaina li wajhi zil jalaali li wajhi zil jalaali qaasidina am na tasadur di wal infiraadi bin nafsi wal atbaai fi tamadi sëriñ bi wax ne mi ngi soññ mboolem kilifa yëpp ñu gën a jame suñu yitte sunu taxawaay ci yokk daaray alxuraan yi ak daaray xam-xam yi ak di taxaw bu baax ña fay jàng ak ña di jàngale te di leen toqi te leen tàggat ci ñu nangoo liggéey bu baax te yar leen ci nangoo am kilifa ak wormaal ak leen te sàmmoonteeg seen ndigal rawatina ndigal lu jëm ci sàmm lu ñëpp bokk yéen njaboot gi sëriñ bi nee mi ngi leen di digal ngeen boole ci seenu njàng ak seenu gëstu yitti wa xam-xam bu baax liggéey bu rëy bii ni fu kilifa yi ak li mu jur ci barke ak teraanga la leen ko may ak lañu ñu ngànnaay woon ba ñu koy wut ci yitte ak dogu la ko wute mu ne su ko defee ngeen tàmbalee ci xam ne sëriñ bi bi muy sos yoon wi ab taxawa ab ab taxawaayam akub liggéeyam waral lii lépp mboolem ñi ëpp ci ñi mu tofal mbooloo boobu weesuwuñu fanweer te xam ne sëriñ bi ci boppam li ëpp ci li mu taalif ci fiq ak tasawuf boobu fekk na Maamor Anta di dund ba jàngal na ko lenn ci ay njabootam te lépp ci njëlbeenam la kon ñooñu ñooñu mu jëkkoon a àndal seen yitte ju kawe ak seenu njàmbaar tax na ñu dem ci ay barab yu nit mësula dëkk gorkom sanc fa dëkk yoo xam ne lépp lu ab julli war a yittewoo ci wàllu di sàmm wàllu addunam ak wàllu diinam bali ñu mujj xam ci ay natt ci ay dëkk ëpp na juróomi téeméer moo tax sëriñ bi wax ne mi ngi digal yoon yëpp ñu roy ak Cheikh Ibrahima Fati ak borom gaawaan ak seeni rakk ba ci sëriñ Masamba ci teel a nangoo am kilifa ak topp ci ginnaaw sa kilifa nango dogalub yàlla ci jiital gi mu ko jiital te Cheikh Abdoul Ahad Mbacke waxoon na ne sa kilifa loo ca fekk rek loolaay sa sens te ñu jël cheikh su mag si jëkk a topp sëriñ bi def seen ay dellukaay ci seen yitte ak seenu njàmbaar ak ci jiital gi ñu jiitaloon soxla soxla si yoon bi ak lépp lu koy sagal ak a jëmi karam ci seen biir bopp mu wax ne koroo ci gaa yu baax yi yàlla dana la wane lañu amoon jombul képp ku góorlu topp seen bor wala tu xassis fadla rabbin xat ala li siita xaddumin faqat fatajala wallazina amanu wattabaatuhum zurriyatuhum bi imaanin alxaqna bihim zurriyatihim Mamor Dia borom Sam jamono yi nga xam ne Sëriñ Tuubaa da daa ci Tuubaa di daw nit ñi saa bu ñu jaaxle ba xamuñu nu ñu def day ñëw delloo si nit ñi wax leen ne kii leen fi dajale jékkiwul ba dajal leen fi door a seen nu leen di yore daa jekki ba xam nu leen di yore door leen dajale fii yéen ñi yëngatu ci wàllu luy defar am réew sëriñ bi nee na ginnaaw bu mu leen gërëmee. di rafetlu taxawaay bi ak yéene ji mi ngi leen di soññ ci ngeen gën a jege askan wi bu baax ngir gën a man a xam li jiitu gën leen a gën leen a soxlaa ci seeni bëgg-bëgg su ko defee lu ngeen ca man ngeen taxaw ko di def ko nee na itam ndaw yi ngeen di bëgg a dimbale ci wàllu liggéey yu jëm ci taxawal ay bërëbu liggéeyukaay ngeen tàggat leen bu baax ci ni ñu saytoo koppar yi ngeen leen war a jox ak yoon wi ñu jaar ba mu mën leen a amal njëriñ mi ngi mi ngi dellu di leen soñwaat itam ci ngeen gën a taxaw baykat yi ak sàmm yi ak mboolem liggéeykat yi suqali seenu réew mi ngi rafetlu ci mi ngi rafet lu baax nag ci wépp waxtaan wu mën andi ak déggoo ak dal ci réew mi mi ngi sàkku itam ci askan wi ñuy moytu jëpp jëf walla wala wax ju mën a andi fitna wala ak xàjjale ko ci biir réew mi ci biir loolu itam ñu ngi naqarlu bu baax a baax li nga xam ne xew na fan yi ci ki nga xam ne rey nañ ko ndax ne xam ne loolu bokk na ci liy taal fitna ci biirum réew tawal fitnatu ashadu min al qatli kon sëriñ bi nee na mi ngi soññ njaboot gi yëpp ak taalibe yëpp ak réew mépp kenn ku ci ne ñoo xam ne bu nguur gi góorgóorloo itam ci def wàllu sécurité ñoom ci seen wàllu bopp itam am nañ seen responsabilité kon kenn ku ci ne loo ci gisati ci loo xam ne xam nga ne lu mën indi fitna jooju la na nga fexe ba leer ko ba ñëpp ña ko war a saytu xam ko sëriñ bi wax na ne nañu moytandiku po po mu bari mi ci réew mi ak yàqate alal ci loo xam ne du farata ngir xam ne kuy def loolu yow seetaane képp bokkub atte te innal mubasdirina kaanu ixwaana shayatin wa kaana shaytaanu li rabbihi kafuran ginnaaw loolu nag bala ñoo jeexal ñu andi tuuti ci mbirum wasila ak tawasul ak jaayante la daale ci jamono yonent bi jaar ci saxaaba yi ba ci borom borom ñeenti ngir yi mosuñoo wuute ci loolu ci mujjug 1300 la menn mbooloo jóg wax ne wasila ak tawasul ci yonente bi ak gaa yu baax yi yàlla gërëm bokkul ci lislaam ndax bokkaale la mu teg ca ne barkeelu ci ñoom ak ziyaare leen jaamu xéram la ak ku kéefar loolu nag mi ngi juddee ci bëre bu ñu solal mbubum diine bu xewoon ci réewi arab yi ci penku waaye loolu du seen di seeni xalaat dafa jur wuute gu xóot digganteem ak mbooloo mi gën a bari ci xulamaa ahli sunna ak chia bari boobu nag moo law ak mbubum diine ba ci réew mi te kenn ko ne xam na ne bari boobu ak yi mu nuroo ci turu diine baaxuwunu ko xamuñu ko itam ci sunu histoire ndax ñi sanc lislaam ci Sénégal dañoo gëmoo ne liggéeyal yàlla ak diine ji dara gënu dara gënu cee kawe yaatal ko ak woo mbooloo mi gàntale wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ñi nangoo wax loolu nag saa su ñu ko waxee tuub ay woy gëm lañ leen di jàppe jàppe leen ay jullit ni ko suñu borom waxee ci alxuraan faqtulu musrikiina xaytu wajadtumuhum wa xusuuhum wa xsuruuhum fi in taabu wa aqaamu salaata wa aatawu sakaata fa xallu sabilahum inna allaha xafurun rahim kon ñoom mag ñi seen bari ci diine ji mosula weesu diggante yéefar ak jullit ndax xam gu ñu xam ne benn bëri boobu rek la yàlla dagalal ci diine ji dolli ci ne dañoo mës a gëm ne sariha ak xaqiqa ci kenn mënu leen xajale ci lislaam ndax moom yàlla suñu borom moo wax ne huwa al awalu wal axiru wal zahiru wal batinu loolu moo war a Sëriñ Tuubaa wax ne fa waajibun ala al ibadi turra jamhuma likay yanaalul birra wasila ci làkku araab nag moo di lépp loo xam ne danga koy jëfandikoo baa nga sukkandiku ca baa nga jaar sa ngir am liggéey ngay wut baa yegg fa nga jëm mbaa xam li nga réere mbaa dàq li nga ragal mooy lépp looy dimbandikoo wala jëf joo wala xalaat wala ay wax wala jëmmi nit ku baax ko yaakaar ci moom ndax nee na képp kuy sàkku ci ñoom ñaan seen ginnaaw wala chafaa wala ak ñaanam wala siyaara seen bàmmeel yaa ngi bokkaale bakkaar bi gën a rëy ci xeeti bokkaale yi yàlla suñ boom dafa wax ne yaa ayyuha allazina am ittaqullaha wabtaqu ilayhi alwasila wa jaahidu fi sabilihi baatu wasila ci ay bii nu wax daa matale mboolem xeeti tawasul ak jëf ju baax joo xam ne mën naa tax jaam bi jege borom am na borom xam-xam bu màgg bu ñuy wax docteur du Jawda nee baatu wasila bi yàlla jëfandikoo ci aay bi am mbaale na xeetu jaamu yàlla yépp ak mboolem jëf ju baax lu mel ne siyaari gaa yu baax yi ak tawasul ci ñoom ci seen wàccuwaay ak seen worma ji leen yàlla may wulaayika li si yad'una yabtaxoona ilaa rabbihim al wasilatu ayyuhum aqrabu aay bi li muy fiir mooy yéefar yi nga xam ne dañoo daa jaamu ab yonente ak malaayika mooy leen ñooñu ngeen di jàmm ñoom dañu wut wasila ci ñi leen gën a kawe ngir ñu yeggale leen ci yàlla lool nag su amee kon kon kon lu waral ngeen ngeen di jàpp yàlla ñu wax ne maanaam loolu ëmbaali na tawasul ci gaa yu baax yi ngir jege yàlla te ko ko firee noonu mënu ko wutal firnde walla dalil te jamono yonente bi am na firnde ju wér ne tawasul daan jëkk jëkk ñu yónni yónni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yahud bani nadir lu jiitu lislaam suñu daa ñaan seen aajo daanuñu tawasul ci jëmmi yonente bi yonente yàlla muhammad waaye bi ko yàlla yónnee ngir mu woote diine lislaam la ñu bàyyi tawasul ci moom ngir rëy ak wedd gu ñu ko wedd moom la suñu borom di nettali ci alxuraan di wax ne wa lamma jaahum kitaabun min indillahi musaddiqun lima mahum wa kaanu min qablu yastaftihuuna ala lisini kafaru fa lamma jaahum ma arafu kafaru bihi fa laanatullahi ala kafir bokk na ci nit ñi daa tawasul ci jëm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam allahuma inna nastansiruka bi xaqi nabiyi al ummiyi illa nasartana te la ko jëkk sayiduna aadama alayhi salaam tawasul na ci jëm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sayidna umar ibnul xataab wax na ne aadama ba mu defee bakkaar ci àjjana ba mu bëggee tuub ndaa wax suñu borom ne ko yaa rabbi asaluka bi xaqi muhammad li ma xafarta bi suñu borom laajee aadama foo xamee turu muhammad mun ne ko bi nga ma sàkkee bawal ci ci man sa ruux dama téen bi ma téenee laa gis nga bind ci kenooy aras laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah ci laa xamee ne muhammad nga gën a bëgg ci mboolem loo sàkk suñu borom waxaat ne boo waxaat ci mbirum tawasul ne ci jëmb yonente bi ak sàkku ak wàllu ak ak jaar la ko ci moom wala wan nahuma id zalamu anfusahum jaa'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum rasul la wajadullaha tawaban rahiman moo tax Sëriñ Tuubaa wax ne qul qadamahu fawqa kulli raqaba minhu staaru lxurru kulla man qaba Seydina Usmaan ki silmaxa woon dikki ci yonente bi ci tawassul la ay bëtam gise allahuma asaluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyika nabiyi rahma ya muhammad inni atawajjahu bika ila rabbika fi xaajati haasi fa taqdiha li yonente bi ak awliyaaw yi ak woy taxee suñu faatoo seen ruux day am doole malaayika ak seen kattan ak seen xam-xam ak seen man-man ci barsax day gën a yaatoo ndax dañuy xam lu ñu xamuloon di dégg lu ñu lu mën loon di dégg dem na ba man lu ñu mënutoon ci àdduna moo tax suñu borom di wax na inna lahu indana la sulfa wa xusna ba fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan ndax fekk ngeen ci seen bàmmeel la leen yàlla digoon am am am ñu ko laaj ci saxaaba yi ne ko yi mu na ne ko atad'una amwaatan ndax da ngay wax ak ñu faatu mu ne leen ma antum bi asmaa minhum walakin walakin la yujiboon mu ne ko ñoo leen dàq dégg waaye yéen mënu leen dégg seeni wax boo xoolee Seydina Yaqub bi mu barkeeloo ci mbubum doomu Yuusuf ngir ay ay ay ay gisam dellu siwaat ishabu bi xamisi hasa falquhu ala wajhi abiyaati basiran waatuni bi ahlikum ajmain lii nag su ngeen gisee di ko leeral jubluwunu ci atte ku amee dëgg ak ku amul dëgg ndax loolu yàlla rek ko jagoo innamal a'malu binniyaat waaye woote ci diine nag su juree werante ak féewaloo ak tuumaalante kéefar wala bokkaale wala ab xeex am na leneen lu ca laxasu lu bokkul lu bokkul ci diine ji su boobaa nag l'islam day doon l'islam du jaxasoo idéologie islam nag saa su jaxasoo idéologie faw mu jur xeex xeexoo ak boddi côté te loolu dëgganul diggante jullit ak moroom loolu moo waral bi islam yegsee ci réew mi ànd ak lu bari loo xam ne bokku ca mag ñi dañoo seet la ciy diine kese ak yàlla ñu jël ko delloo la ca la la ca laxasu te bokku ca di digle lu baax ak tere lu bon noonu lañ fi nekk woon tàggat ci njaboot gi ba seen mission mat ndax ñoom dañoo teel a xam ne benn bër rek la yàlla dagal ci diine ji mooy diggante jullit ak ki wedd yàlla te gëmul ëllëg te bëri boobu yàlla suñu boobu daa santaane nu rafetal ko wa jaadilhum billati hiya asan kon nag nanu rafetal bu baax ma jeexale nag ci liggéey bi Serigne Touba doon liggéeyal sallallahu alayhi wa sallam li mu jaayantoon digg ma boroom natt yu ko ci natt yu ko ci suñu borom te nga xam ne ci histoire ma siisu koo dégg ak may yi mu ko defal nga xam ne ma siisu koo dégg dëkkam bii di Touba bi mu fa wàccee dafa jëlee engagement yu diggam ak borom mu daj fi ay natt yoo xam ne nit attanu ko wax na loolu génn ko daj na ko te am na ci yoo xam ne du ko tudd ndax ay teggeen diggam ak boroom mu taalif Matlabu Fawzayni wax ci ni mu bëggee tubaa mel ni wax ci itam ni koy sunu borom xamal ni mu nar a mel ëllëg chakartuhu li annahu qad saaxani li watanan bihi nafa ma anqani nasatu tuubal yawma dayfan yaa karim lakka fa akrim ni ikraman yadum waxaane sunu borom teral na ma ci sama barab bii ak sama dëkk bii karramani fi mawdihi wa baladi mukarrimun bil amni safa xaladi akramani rahmanu ikraman kafa kulliyati durra wa faydi wa kafa nawaytu an ubari an ubayi'a al yawma rasul alayhi salli li habbihi qabul bayatuhu ala ibadatin laka summa ala summa ala xidmatihi li wajhika mu dellu wax ne yàlla sunu borom jiital na ko ci mboolem ñi liggéey rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xaddamani llahu ala alxudaami bil mustafa al musabbitil axlaaqi mu xam la itam suñu borom boole na ko ci mboolem ahlu badr te muy loo xam ne ku ne xam ne lu faat la xaddama nii xuduman xaj jaao bi bushari xuqiqa rajaaw damat niyal amdaahu wa tawxiidu li jundi muhsin man lahu juhuudu yàlla sunu borom ba saxaaba yi jaayante joxe seen bakkan moo tax mu wax leen ne fa yaqtuloona wa yuqtuloona ak laqad radiyallahu anil muminina is waaye yoo xam ne taata sajarte loolu moo waral li mu jaayanteeg boroomam te fas ko yéene sottal moo ko yóbbeel li mu daj lépp ci ay fitna te wal fitnatu ashadu min al-qatl ak ci noonu fu leen neex jëme ko fa mu wéccee ne cundum te du ko mettitlu du ko jàmbat te kenn wetliwu ko ca fanweeri at ak ñett ba ni mu ñibbisee Tuubaa mbooleem lu neex ci bakkan mu jaayante ko du ko jëfandikoo waral ci boppam fanweeri yëf ak ñett yoo xam ne wóoru ko noonu la ko defee itam ci mbooleel li mu tari warul na ci loo xam ne enrut gàllu ko ko lahul tazamtu maa alayya yalzamu waraada li luzumu ma la yalzamu bokk na ci li ko suñu borom may ba ñu ko yóbbee sànke ko suñu borom defal ko bo mu mel fi mu jógee fa man yulqini fi lbahri rawman li xurbati fali min ilahi rawdu fi kulli aylabi li jaad rabbi bin manasili lada taarubi mutayiban lil xalada inni jaaltuha hadaya li shihab radi anhum man xamani hansa mboolem kër kër yi suñu borom bindaloon noonu ya ci àjjana bu ñu jaamoon yàlla suñu borom may ko ko mu joxaat ko addiyee sahabatu rasul wëlbati ko suñu borom joxaat ko lu ko ëpp mu fàggul ko teel bi boppam ndax nee na xam nañ yàlla suñu borom du jeexal takk te noonu yi ñu ko booleel ci li jaayante du soñu xam fu ko jëme ak natt yi ñu koy teg te kenn du ko ci dimbale lépp moo ko yanul boppam astaxlisu li nafsi te jëkk muy dem ci géej gi Serigne Saliou Mbacke wax na ne mu ngi taalif Matlabul Fawzayni dafa am gaynde gu doon ndax njaay àll ba agsi ci sëriñ bi njaay àll ga làqatu ci sëriñ bi gaynde ga taxaw lu yàgg dem bàyyi ko te sëriñ bi raf sax defu ko koo xam ne rab rabi àll yàlla ñoo la rus asama doomu adama te rasulullahi ci boppam moo sàkku ci sunu borom ne ko na nekk xaadimu rasul di jëwriñam raama rasulullahi min ilahi kaw nii xadimuhu abdullahi moo wax ne sama deret ak samay taalibe ak sama njaboot lépp def naa ko muy ak njott ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dami wa ahli wa awlaadil fidaau lahu abdan xadiman lahu muskaana li sanada mu dellu wax ne ba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dellu si ab ab xam la koy lalal ba gën dég ko jam xaddi wiqaayatun li rijlil mustafa an shawkatin wa xayatin wa aqraba loolu moo waral mu àgg ak sunu borom foo xam ne ñàkk jaamu yàlla ak ñàkk koto topp li mu jural mbindee fi mooy tabbi safara ak alko naka noonu féewaloo ak Cheikhul Xadim ci tayef loolu yi rek la jur te moo ko bind wax ne siiqal la siina tarakul ibada li naari man man lam yuti ibada li man lahu kulliyati ibada hamdi wa man xaalafa ni ibada sunu boroom tabbat tàggatal ko xoli mboolem ñi nar a taxe ñu jublu si ko xuloobu jumlati la siina aflahu li yatawajjahat wa rabbil muslimu doomu aadama ju nekk nag ñaaroo ko seq xelam ak xolom bu ñu baaxee léppam baax moom sëriñ bi mu wax ne lëndëmee xeli ñu ko sopp suñu boroom far na ko ba mu set àgg naag boroom foo xam ne mboolem lu baax loo xam ne gaa yu baax yi ñu ngay gaawantu di ko wuti loolaa gaaw di wuti sëriñ bi teg ca yàlla lu nekk mën na ko ilayya baadara la si yu baadiru lahul kita lahul kiram wa ilahi qaadiru wax na ne ñi tudde ay walliyu ak i boroom xam-xam la daw di ko wut loolaay daw di la loolaay daw di dugg ci sama biir taalif yi moo xam wesar la wala way la farra li nasmi wali nasi kulluma farra ilayhi lawliya wal ulama nee na sunu borom moo ko wullil xoli mboole mbindeef yi ak seen yaram nee na itam moo ko tàggatal ñi ñu tuddi ay boor ak yi ci àdduna yëpp indil ko la fay njariñ alaana lil quluba wal abdaana man xaadali fi baladil buddaana layyana lil quluba wal abdaana man raadalil muluka wal awtaana loolu moo tax mbindeef yi ni ñuy wuysee di màggat gi ci sunu jataay bi jëmbal na ko jëmbal na lenn ci firndeel lii firndeel loolu sëriñ bi wax sëriñ Tuubaa nag waxuñu lu araam mbaa lu ñu sib mbaa sax ay neen waaye bëgg woon boroom la mu ko jaral ak fa mu ko àgg tax na mu jël lu bari lool ci yi nga xam ne dafa dagan ci doomu aadama mu jaayante ko ak boroom ne dootu ko jëfandikoo faaraxtu jumlasal minal mu baaxi liman kafaani zawi nu baaxi بايعت بيع لج مع الدم لوجه من أفدي له أموري نبست كح والعلي قد قاد لي بدلا ولي لوجه ما تسكو به الخدم نبست في دكسة ما لا أبينه كأنه بعدما قد بعده عدم مدن رسول الله جيني نيب جم لم ينه قلبي ما يضر مسلما mustaxniyan an kulli man la muslima moo tax képp ku yaakaar Sëriñ Tuubaa wóoru ko fayur wóoru ko xeexal di sàkkoon mbindeef yépp yërmaande ci boroom yaa maalikal mulki yaa man jalla an xawadin irham jami al wara yaa haadiyan rada doonaan xaar baaxe ci bëgg yonente bi sallallahu alayhi waxtu wu ne mi ngi julli ci moom ak jibbal ko léppam nee na itam bayitu yu bashirukal baax yi bi xatti karamatan wa in an ardil madinati zaana yi ngi ko def ci benn ci duni ci géej gi digganteem ak ndakaaru mi ngi met mi ngi toll ne ndakaaru ak ndar nee ba mooy ca tuddee ardul madinati ci sansa la yàlla def ñu di ko jànge ca xabru yonent bi sallallahu alayhi suba ak ngoon li nga xam ne fàggal na ko bépp taalibe boo ko liggéey mooy barke boo ànd xéewal bu tax nga fàtte li nga doon sonn li nga ko doon sonn ci coono boo ma sonn sonn ak lépp loo ma sonn jànkoonte ci liggéeyal ko nee na liggéeyal ko mooy tax am barke ndax nee na barke ku ko bëgg danga koy jënd li ñu koy jënde mooy dëppoo xuruuful barke nee na baa mooy lépp luy bàyyi lépp luy caaxaan ci saaxir ak ci baatin yu saaxiri mooy di def lépp lu lépp lépp lu solo ci say cër yu baatin mooy di xalaat lu baaxul ci sa xol raagi mooy rafoon ay mati ilal aliyil ala te mooy kaweel sa yitte ci yàlla te bañ a geestu la neen lu dul moom kaaf gi mooy kasbul xuyuuri niyatan wa xawlan wa fi'lan te mooy di fagg aw yiw di wax di ko jëfe taa gi mooy attawbatu nasuux te mooy tuub gu sell ci mboolem ayib yi nga xam ci sababu ak yi nga xamul te yàlla xam ko ci yow mu leer la ne boo jëfoon lu toll ne asamaan ak suuf ci lu baax lu tax nga def ab fukkeel ci li nga war si digg sa borom wa ma qadarullah xaqa qadrihi xëy gi mooy al hadiyatu lati tatawalladu minha al hidaya te mooy hadiya moo lay nu jub nu ñëpp moo lay womat xëcc ñu ba dugal ba dugal ñu aljannata lati mooy mu taxu na nee na nag barke su ko able deesu ko maye deesu ko saraxe ak njëg rek ko ko maye moo tax sëriñ boo wax ne barakatan bi ne bi nay li xayri ni'ma tunsil muridina ana al xidma moo tax boo ko amee dana la fàttali mboolam loo ma a jëf ci lu baax ak mboolam coono boo ma sa daj